mais Ablaye Mbaye Mbaye xaw ma fa ma toppee ay boo nekkul dëmm am nga xaritu dëmm wala maamu dëmm wala seen kër kër jàkkaarloo am dëmm Mbaye mosuma gis ay Mbaye fa ma i ñëw nga waxam topp ma mais waxu dëmm dafa xew de no non non mais nag ni tuuma doomu aadama baaxul kooku suñu yaay la kenn kenn war ko wax lu ñaaw parce que ah. yaay la yaay bu ma tee yaay da nga xam ne yaay nga fii ñi fi ne dëmm bari na trop te naawuñu ah. mënoo yéeg ci avion ci kër rek ñu ne dëmm nga ah. dëmm dëmm suñu borom yàlla dafa am loo xam la kaa wax dëmm dafa rëy dëmm du lu ndaw bàyyi leen ni ngeen tam ku toog ci étage yoo dëmm xanaa dëkk bi ay dëmm lañ ko parce que fa yëgal kenn da kaa li nga fa yóbbu kenn da kaa xam nañ xool li nga fa yëgal lan na nit ñi bàyyi li ñuy wax lu bon sunu yaay yal na la yàlla indiwaat sa xel ñëwaat ci ay doomam bu leen ci mais bu leen def Sénégal moo baaxoo noonu ku def détail ñu ne nam ma kii kii kii taal cuuraay rek tooñ na tooñ na réew mi tooñ réew mi xamoo cuuraay cuuraay lan mën na xër meer bi géddee mën na mën na koo coroxaan lu ne mën na ko def ak jël ay xobu garab taal ko naan dëmm la dëmm la du dëmm nit bu nit ngay xam lu rafet yaay boo yanal yàlla indiwaat sa xel ñëwaat ci darajaay xam Muhammad yaay boo yanal la sa sa lépp ñëwaat ngi jëm rasulullah amin Pawlish ñu ñu gis ni xale yi màggal waajaaj màggal bi Pawlish xale yi jigéen yaa ngi defaru xale yi jigéen yaa ngi koy préparé lan moo lan moo xew. mbay ban surprise mooy waaj am. du surprise ma màggal surprise amul surprise. Hmm. màggal Serigne Touba màggalam la. soo fay def lu bon boo ñibbisee da ngay gaañu par force. gaañu par force par que Serigne Touba màggalam gi màggalam la. xale yi jigéen yaa ngi rocceeku lu def di xeesal di rocceeku ku dem Touba li leen fa yóbbu mooy lan màggal yóbbu leen fa nangu jëkkër jàmbur di leen fa yóbbu. jëkkër jàmbur. munoo munoo dem Touba di yóbbu 60 valise màggal taxu laa jóg nangu jëkkër jàmbur la tax a jóg. mu réew Touba di bënd sa laamin bënd sa jumbax xale yi li ma gën a metti nag xale yi bu ñu demee ba egg Touba dañuy saa seeni eex dañuy changé seen seen seen mot la ñuy changé seen i ex la ñuy changé suñu bëggee wax pardon te naan Cheikh yi maa Cheikh yi xam te góoru tubaab doo la nga làq. Ah? góoru tubaab ñoo gën a complexe làq français ci àdduna ñoo gën a làq ñoo gën a complexe làq français te xale Dakar fii jànguñu de. ñaari ñaari point lañ am comment vas-tu Cheikh yi sors tranquille ci ci déjà mangé déjà lan mooy déjà mangé déjà mangé sax naa pare mooy loolu déjà mangé sax naa pare te xale xale góoru tubaab yeewu leen am na seen i jabar yi dañoo sëy fekk at ak juróom-ñaar ñu ngi leen di sëyal mais bu màggal jotee dañuy tiit jigéen ñi bu màggal tax jigéen tubaab bu màggal fa xasee ba tim dañuy tiit dana waroon kontaan mais dañuy tiit li li leen di tiitloo xale yi Dakar dañuy ñëw indi seen i valise te xoolal xale yi Dakar duñ dal fu ñaaw masaga xale tubaab dal fu ñaaw ay ay nit yu intérêt lañ màggal kay fu la neex dal fu am clim fu am clim la ñuy dal fu am ay foofu la ñuy dal kër gu rafet la ñuy dal duñ dal fu fu ñaaw mukk ay nit yu intérêt te xoolal sa jëkkër duñ dal ci duñ dal ci kër gu ñàkk dundal ci kër gu ñàkk xale Dakar woo bokkul bay xale Dakar woo bokkul xale Dakar foro yu toppee xale Dakar bàyyi leen màggal gi ngeen yi bàyyi leen màggal gi ngeen bëgg a yàq màggal dañ ko def léegi moom événement bu rëy rëy événement Sëñ Tuubaa la événement Sëñ Tuubaa moomu màggal dem si xablu yi di si dem ci xablu yi di bafal ah, dem ci naan kuku du sina seen yaay du sina seen papa mu nga sina seen yaay wala de li lekk lañuy famille li ñuy lekk dañuy sinap du sinap seen yaay du sinap seen papa xale Touba intelligent leen ku ñëw na seen jëkkër na ngeen bu ñëwee ne pardon ne leen pardon bu dee ngeen di indi quoi bu dee quoi def di quoi de dix parce que ñoom moomuñu leen jànguñu jànguñu dara danoo xam ne yéen seen jàng sorewul fa ñu naan pardon petit déjeuner lii te ñoo a xasaw ci seen poxutaani bu parce que dañuy dem sarbe jigéen góorul waa Touba góor waa Touba tamit ñoo gën a mën nayib ci àddina ku ci manqué xool buuru Touba yëpp am xaay Dakar dañuy ñëw ci appartement yi ndax xaay Dakar dañ leen a góondi ba seen jabar woowee allo allo allo sëñ bi foo nekk nga noo kon ne day wàcc dama nekk ci boobu xoolal xaay Dakar góondi lañu bëgg a ñëw Dakar te ku ñu ñëw Dakar doo ñibbiwaat màggal ba màggal ngeen def seen jabar yi ñu ngi leen di sëyal xalaat ne jabaru Dakar am na ñoo xam ne duñu ay jabar de tax a jóg leen tax bàyyi jëkkëru jàmm yi ngeen nangu ci màggal gi wasalaam mbay loo bëgg a wax dañu gis ni yow loo wax dañ naan dañ naan Pawlish wax na waxu dof lay wax mais après trop tard loolu mooy am. fi nga ni Youssou Ndiaye day xew ak une semaine. xew na bu yàgg. waaw lu ma la waxoon. <laughs> dox mu yàggee. dox pire ni mu yàggee Youssou xew na bu yàgg. dëkk yi maa ko moom mbay mbay dëkk yi maa ko mbay man bu ma xewee rek yàlla day xewee te yàlla du xewee te man du ma xewee waxee dof am wax mbay hmm. te en plus mbay nit ku bu ñàkkoon yàlla du ko xañaat ci ñàkkam man hmm. waxee dof gi mbay du ma ko bàyyi de ah. waxee dof du ma ko bàyyi mbay Demba nag je suis un peu fatigué wala je suis fatigué. non loo gis si bi dañ cee wax si lu garaaw. ba fi mu nekk ñoom ñu ngi leen ñu ngi si loxoy yoon. na yoon def yoonam lii laa mën a wax moom affaire police moom dama ragal police police moom dama ci avance dama ci police boo dugg si affaire police. nee nañ woykat bi leen sama yoon nekku ci affaire police laal du ma mbay bu dee daa am loo duul wala loo fen waxi ko say mbokk sama yoon nekk ci dafay bàyyi de merde ah tuuti quatre ans de là Kubel Kubel Kubel vidéo ah, saaga teg sa téléphone di saaga comprendre nga dafa bëri dafa bëri trop trop yéen kilifa yi lan moo tax du ngeen génn di communiquer si loolu nga gis nga wax ju ñaaw du gàllaaj mhm. defin wu ñaaw du gàllaaj mhm. maa ngi dañuy wax ne defin wu ñaaw mhm. amin wu ñaaw waxin wu ñaaw deexin wu ñaaw rek xale bi moom li ma koy conseil lii bu ci génne na bàyyi ay saaga saaga baaxul wax lu ñaaw baaxul nit day fexe di génn ci làmmañam wi lu baax mm-hmm. di xool ci bëtam yi lu baax di dégg ci noppam yi lu baax mm-hmm. bu ko defee mm-hmm. yàlla dimbale waaye di xasee saaga du ndam dëkk bi lépp lu nu man man bëgguma kuy wax lu ñaaw bëgguma kuy def lu ñaaw comprendre nga euh, ku mel ni ku mel ni délégué Amar ci famille bi mu bokk loolu warul ko délégué Amar exemple la ci réew mi di kale di dóor loolu waru ko. Mm. kan nga bokk ak ñu ne Cheikh Amar di kale di dóore lan la. Mm. yooyu waru ko moom na xam ne taalibe la. Mm. bu mu dugg ci yooyu. Mm-hmm. te bu mu fexe kenn di ko dugal ci dara. Mm-hmm. nit dafa am loo xam ne yaa koy bañal sa bopp moom fi mu bokk la. Mm-hmm. bu defee dara ñu ne rakku kan la ñu ne rakku Cheikh Amar loolu rek dafa dafa garaw kon wax ju ñaaw ji nañ ko ba jël sa nawle di ko xas di ko yàq yekk ko loo xam loolu baaxul. nañu bàyyi yooyu mbay baaxut. Mhm. beneen bi. Mhm. Euh, dañoo gis nitu télé yi. Mhm. nitu télé yi dañuy fréquenté ay sëriñ. dañuy da ngay gis kenn koo xamante ne day fréquenté si benn sëriñ. waxal ko lu baax. waxal ko comme euh, waxal ko lu baax. su génnee dem si beneen sëriñ waxal ko lu baax demaat si beneen sëriñ waxal ko lu baax yàq kii dem dem sëñ Babacar Si yàq sëñ sëñ sëñ Mara Niass dem si sëñ Mara Niass dem sëñ jóge sëñ Mara Niass dem si sëñ yàq Mara Niass léegi yéen ñii la koy waxtaanee wala lan. non non non. Mhm. gis nga yàqulu Serigne Cissé sa bopp nga yàq. lan moo tax loolu. mbon ak mhm. ñàkk a xam sa bopp. Mhm. waaye bu fekkee ne da nga ñëw ci Serigne Cissé wax fi ba Serigne Cissé yëkkati jox la. nga dem fële ngir bëgg lu neex ko ko nga yàq ko ko yàqulu Serigne Cissé sa bopp nga yàq. nit dafa am loo xam ne bul fexe ba ñàkk bul fex pertaal sa bopp. pertaal sa bopp mooy fexe ba ñàkk sa dignité. ñàkk sa dignité baaxul. nit ki boo bëggee ci moom dara it wax ko ànd la moom ci dëgg. waaye bëgg ci Serigne Cissé dara tax nga dem di yàq keneen loolu rafetul uh-huh. nit ki dafa war a seet ni kàddu gën a rafetee muy doxee noonu waaye soxla dara ci Serigne Cissé ñëw yàq Serigne Cissé soxla keneen ci dara ñëw yàq ko ci Serigne Cissé loolu baaxul. waaw ah, loolu dégguwu leen koy waxtaanee. pour di comme musiciens yi ñun ay exemple la ñu. Mm-hmm. ñun kuy wax lu ñaaw sax boo yegsee bëgg ko wax. man Serigne Cissé personnellement sama kër gi kenn du fi yegg si di tudd turu jàmbur. boo ñëwee dañuy toog waxtaan. bu amee lu ñuy seq nu seq ko waaye doo fi yëkkati benn deru góor di ko yàq. mais bu ngeen xamee loolu la moo tax du ngeen jël seen responsabilité. non man ku ma xam ne su ngeen gisee su ngeen gisee kee yàggul tuuti gis nañ la yàgg Omaro. Mhm. comprendre nga Omaro mhm. dina tagg dina tagg mhm. dina tagg. jékki ci gisatuñ ko. mu demaat feneen. yàggul beneen comédien gis nañ ko fi démb. mu mu mu ñëw. nga jox ko xaaj mu demaat si benn sëriñ. yàq si yeneen sëriñ yi. lan la waaw xam nga man. ni ma yàlla euh, xam nga man suma kër gi amul amul videur amul garde ko boo ñëwee da ngay sone ñu ubbi la nga dugg wax say soxla génn. waaye bu fekkee ne da nga ñëw pour yàq nit moom doo ko fi defati. man kër gi këru taalibe la. ku ñëw ku ne mën nga dugg wax soxla ndax amul sens interdit mm-hmm. ndax du ñu dox ci lu leerul mm-hmm. lépp lu ñu dugg day leer kon boo ñëwee ci kër gi lépp luy dëgg rek ànd ceeg ñun mm-hmm. ci rek bu nu xamee ne nag da ngay wax fii wax fële kër gi moom dootoo fi teg sa tànk wax fii wax fële dem ci sëriñ bi lay fen fa ñëw ci sëriñ bi fen fi dem ci sëriñ bi fen fa mu mel ni sëriñ Cissé bi nga bàyyi ko moo la yebal loolu sëriñ Cissé doxu ci te ànd ci nit damay bëgg nit koo xam ne da ngay correct tegu ci yoon ndax man boo correct wu ci yoon doo ànd ak man da ngay correct aw ci yoon. ànd ak léegi dafa jaxase gars yi lan moo tax Omaro ñëwatu fi. waaw xam nga Omaro. Mhm. moom mu ngi noonu kilifaak boppam la. Mhm. moom moom moom lu mu sentir lay def. Mhm. kilifaak boppam la mu ngi ci yoonu boppam kër gi xam na yoon yi moom ñun ñoo xamul ci ñun ñoo xamul ci lim ne. waaye saa baay daan na wax ne jàmm mu mu ngi ci jàmm. mu ngi ci jàmm. ñu gis ni. si ñetti sëriñ yooyu rek. lañu dem. kenn ki. yow la. Mhm. yow sëñ si mu sëñ baam ka si. kenn ki maaraañas la. Mhm. keneen ki du ma ko tudd. Mhm. comprendre nga. si ñetti ñooñu. waaw xam nga sëñ si li tax gars yi ñetti ñooñu rek. xam nga li tax gars yi di sawar ci samay mbir. man dinaa la musal. dinaa la mosal. waaye bu fekkee ne yow da nga fa béyeekoo. Serigne Cissé de dëkk bii. kenn mënul wax ne Serigne Cissé fi def lii wala moo fi wax njombe gii. wala moo def kii lii. waaye yow bu fekkee ne dañ fiy ñëw ci biir kër gi génn. di tas ay xibaar di wax sa wax ju bon ak sa wax yu ñaaw. loolu loolu yow la waaye du du Serigne mhm. nit da ngay fexe sa làmb ñuy nga ci wax lu rafet di ci def lu rafet. Mhm. Omaro suma xarit la mhm. suma nit la. yàllaa nu boole deful ma lu bon waxul ma lu bon. Pawlish. Pawlish Pawlish ñu gis ko. keroog mu ñëw fii. Euh, démb na fi mujj ñëw na ma day safar. waaw nga ma man taalib Serigne Babacar laa ngay taalib Serigne Babacar. léegi mu demaat mu mu demaat ci beneen sëriñ xam nga. dafa yëkkati fa kaddu kaddu yoo xamante ne nii da ngay waaru loolu ko loo ko gisee. waaw loolu moom naxul nit ñi boppam lay nax. Mm-hmm. dafa am loo xam ne jarul ko moom bi mu ñëwee dafa toog fii fekk maa ci samay gan ne moom taalibu Serigne kar la daa bëgg safaral sëñ Bamba. Mm-hmm. xam nga man mag ñi lu ma ci waaye wax ma jox la ko. est-ce que kaddu yooyu muy demoon fee yéen ko sax ay dama juumoon ak yooyu moom dafa juum bu mu dugg ci yooyu gaam yooyu ay dama juumoon ak nangam mel ni daa am koy sànni xeer loolu baaxul mm-hmm, mm-hmm. moom na nekk ci lim ne rek ku mën a siq ak jàmm siq yow jàmm bu ko rek mu mu jéem a seetnum def wa bu mu yàqal boppam moom xale la mm-hmm. te dafa nekk ci yoon am na yoo xam ne bu mu ci dugg mbay loolu baaxul baaxul dem ci nit naan dama juumoon ak dama nàngoo man yooyu jarul ko jarul ko nit ki nekkal ca la nga war a ne rek moom suma xarit la su ñëwee fii dëgg laa koy wax ni ma ko ko mën a waxee ci caméra bi bu toogee noonu laa koy waxee mm-hmm. dama koy wax na ko xale nga yàng ci yoon nit ñi bëgg nañ la mm-hmm. kon am na loo xam ne lépp looy def rek def ko rek te yàlla tax mm-hmm. bul ci def dara ngir li nekk ci poosam nit ki lii laa koy wax tout temps ndax moom fii këram la bu fi ñëw sax du woote day ñëw mi ñu ubbil ko buntu mu dugg wax soxlaam dem ñibbi ndax séq na ko man kon am na yoo xam ne bu mu nangu ko dugal ci ay détails détails baaxul day yàqal nit euh, ñu gis fan yi hmm. euh, bii na xam naa mooy seen mujj mujjël euh, question nu hmm. gis fan yi wax yu ñaaw yi ñuy def euh, wax sëriñ si sëriñ si sëriñ si dañuy volé sëriñ si dañuy volé dañuy dañuy dañuy neex nekk ak jabaru jàmbur yi sëriñ si dañuy nekk dañuy naxaate wax yu ñaaw sëriñ bu ciy naxaatee waaw ko ba waaw sëriñ bu ciy nekk ak jabaru jàmbur hmm. nanga ko ba waaye ku ji xas sëriñ yi baa ngay dee da nga torox ku ci volé xam luy volé nag ci àdduna ndax man volé ci bant laa ko xamoon bantu funax buy volé waaye nag bu dee ba fekk ni nit ñaa ngee volé wu ku ci bawut volé li nga dee ku ci bawut tëddee jabari jàmbur li nga dee ku ci bawut xas sëriñ di ko wax lu bon li nga dee gis nga booy ragal ay wax day fekk nga nekkee sax interdit ci dëkk bi wax ju bon du gàllaaj ku ko bëgg a def gàllaaj du gàllaaj wax ju bon baaxul de te ku koy def na nga ko baax baaxul mm-hmm. Mm-hmm. wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf